إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أيها الناس قد بلغتم عيدكم ببلوغ فضل ربكم وأتممتم أشركم ببلوغ عيدكم فاحمدوا حميدا كريما واشكروا شاكرا عليما فقد بلغتم موسما كريما ويوما عظيما رفع الله قدره واعلى ذكره وسماه يوم الحج الاكبر جعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين سعد الحجيج الى عرفات وبعد غروب الشمس من يوم أمس أفادوا من عرفات وباتوا بمزدلفة فأتموا حجهم وقدوا تفسهم وها هم الآن في منى لإكمال نسكهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر mbokk yi ci yàlla ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu yéen nit ñi yàlla may na nu nu fekkee feetu tabaski yàlla mottalil ñu ay xéewalam yàlla may nu nu fekke fukki fanu tabaski ak xéewal ya ca nekk nanu sant yàlla nanu gërëm sunu boroom subhanahu wa taala ndax ñoo ngi ci saison ñoo ngi ci bëccëg ñoo ngi ci ay bis yu màgg bis yoo xam ne yàlla moo yëkkati dayoom yàlla moo ko tudde bisu aj bu rëy muy yowmal hajjil akbar yàlla def ko jaalahu iidan lil muslimin yàlla def ko mu nekk feet ñeel julit ñi ña aji ak ña aji wut démb ujaaj yi yéeg nañ arafaat nekk fa ba yendu fa ba ngoon ñu fanaani musdalifa ñu bommee ko tey ci fajar jóge musdalifa jëm mina ndax joxe ji seeni farata yi leen yàlla sant buñ fa déparé dañuy dem watu rendi daa di dem tawaafi kon tey mooy yowmul hajjil akbar dana doy waar torop ab julit bu yendu lënd ci ngo yi lënd daa di woor arafaat ne day denc xaram ba bisub àllarba wala bisub alxamis mbokk yi tey mooy bis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba mu taxawee arafat mu fanaani musdalifa mu jóge fa jëm mina sànni ji jamra bis boobu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli woon mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ayyuhal muslimun yéen mbokk julit yi sunu xutba tey mooy munkiraatu sayf mooy musiba yi nekk ci vacance fa inna munkiraat fi mujtamaina kasira wa hiya mawjuda fi kulli waqt walakin fi hadha alfasl sayf taksuru wa tataaddadu wa yujahar mbon moom daana am jamono ju nekk ci waxtu wu nekk ci weer wu nekk ci bis bu nekk mbon daana am waaye réew mi dañoo tàmm su vacances jotee bu école yi tëjee ak la ca aju ñu jóge Europe ñëw vacances mbon gi daal di tàmbali ci biir ak ci biti ba ci biir géej mbon gi daal di tasaaroo yamatuñ sax ci def lu bon kese waaye dañ koy feeñal jaharan amatul kuy nëbbu amatul ku am kersa amatul sax kuy rus jullit ñépp dañuy génne seenu mbon mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala danan fàttali tey mbon gi nekk ci vacances mbon gi nekk ci loolu ñuy wax as sayf muy bu tàngaay ñëwee lu tax ñu koy fàttali mu nekk nasiha wa tanbih liman gafala anha fàttali laaya biir amaana boo laayee biir ku ragaloon yàlla daa di jël amaana boo fàttalee ku fàttawoon daa di fàttaliku ñu bañ a ñu bañ a oyofal ñu bañ a doyadil mbon gi nekk ci vacances mbon gi nekk ci saison bii nu nekk ak la ko jiitu wala ak lii ñëw ci kanam allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila mbokk yi ci yàlla mbon yooyu ñuy def ci vacances yi ya ca jiitu mooy tadyiul awqaat mooy sànq gi ñuy sànq waxtu wi su vacances xasee jot waxtu yëpp ci caaxaan lañ koy def ak mooy yàlla tabaraka wa taala te waxtu dafa cher moo tax yàlla giñ ci waxtu yi yàlla giñ na ci wal asr inna al insana la fi xusr al asr az zaman zaman mooy al awqaat yàlla giñ na ci yàlla giñ na ci guddi wa layl yàlla giñ na ci bëccëg wa nahaar yàlla giñ na ci fajar wal fajr loolu yëpp lan la ay waxtu la yoo xam ne doomu aadama da ko waroon def ci jaamu yàlla waaye doomu aadama sànq ko ñi ngi ca grand place ya ñi ngi ca tefesu géej ya ñi ngi ca stade ya ñi ngi ca internet ba ñi ngi ca télé ya ñi ngi ca ku nekk mbokki jullit yi waxtu kenn du ko sànq képp ku sànq sa waxtu ëllëg yow mal qiyaam boo duggee bàmmeel di nga rëccu loolu tax borom xam-xam yi naan su nit rombee bàmmeel yi ne laa ilaha illa allah néew yi dañ naan la da ngay fo rek bis boo duggee fii di nga xam loolu lu muy tekki nanu góorgóorlu bàyyi waxtu yi ñuy sànq ñaareel bi mooy atawassu fil mulazat wa sahwat su vacance jotee mboolem place yi nga xam ne dañ naan ku fa dem say bànneexi bakkan da nga ko dundal da nga ko neexal foofu la ñuy dem ñun ñëpp dañuy bommeeku dugg ci place yi nga xam ne mooy yàlla kese moo fa nekk place yi nga xam ne yaramu neen kese moo fa nekk place yi nga xam ne sàngara moo fa nekk place yi nga xam ne musique moo fa nekk ngir lan ngir bànneexi bakkan yi lan la ñu alquran wax fa amma man taxa wa athara alxayata addunia fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa borom bi nee na képp ku bew ba topp say bànneexi bakkan di def li la neex boo dajeeg man di nga ko rëccu waaye képp koo xam ne da ngaa ragal yàlla ba nga poñe sa bakkan tere ko bànneexi bakkan yi borom bi nee na yow danaa la teral dugal la aljanna mbokk yi ñetteel ci mbon mbon yi ñuy def ci vacances mooy al iqaama fi amakinil maasiya dañuy dem boof toog ci place yi nga xam ne mooy yàlla rek ñoo fa nekk kenn du fa jógee ku génn da ngay gis góor goo xam ne dafa génn këram ne place ci damier bi kañ lay ñibbisi gée kañ lay ñibbisi guddi nga gis goo xam dafa génn dem géej kañ lay ñëwaat guddi dañuy boof ci place yi nga xam ne mooy yàlla kese moo fa nekk nga gis koo xam ne huit heures la dem stade kañ lay ñibbi huit heures ci guddi ixwatal iman dellu jot na ñun waa Sénégal dellu ci borom bi jot na noo ngi nii ci nawet ku nekk xamoon na ne heure bi buñ tollee ci nawet asamaan si doo gis jant bi ndax xiin day taw fu mu nekk fi mu nekk ni boobu ba léegi fu nekk ñaan nan fa wàcce nañ ay kaamil julli nañ baaw naan nañ ana ndox mi ndax jotul ñun ñëpp ñu laaj ndox mi lu ko téye te li ruslu mooy ci jamono colonialiste ca jamono bu yàggul dara fii bu nawet jotoon dañuy arrêté pom yëpp dañuy arrêté tëgg yi arrêté sabar yi arrêté musique yi tëj baar yi rek nga gis asamaan bi sotteeku léegi nag lan moo tax loolu defuñu ko lan la ñuy xaar lan la kilifa yi xaar nguur gi ak sëriñ si lan la ñuy xaar ci tere mbon gi nekk fii ndax asamaan wàcc lan la ñuy xaar mbokk jullit yi ñetteel bi mooy as safar ila biladil kufr su vacance jotee da ngay gis am na ñoo xam ne du ñu vacance oo Sénégal réewu yéeféer yi rek réewu yéeféer yi rek su vacance jotee koo wax dem na vacance koo wax dem na vacance fan duñ dem vacance Makka duñ dem vacance Médine parce que yooyu yitteelu leen bañ nañ ko sax ba suñu julli gi dañ naan da ngeen di conquérir yéen waa Makka ngeen di ngeen di àndal waa Makka waa Makka ngeen di toppandoo ma ne jullit buñ ko nee waa Makka ngay toppandoo mu war a sant yàlla wax leen alhamdulilahi rabbil alamin kan moo nekk Makka lan moo wàcc Makka alquran jibril fan la doon wàcc alquran fan la nekk yonent bi fu mu nekk fu kaaba gi nekk fu ndoxum zamzam nekk fu gaañu baax ñi nekk fu aboubacar nekk Umar Ousmane Ali kon kay kuñ ne ñooñu ngay toppandoo santal yàlla illeer bu dammee ca waar wa wàcc na liggéey sant leen yàlla mbokki jullit yi as-safaru ila biladil kuffar tukki rek dem ci yow réewu yéeféer yi parce que ñooñ ñoo leen intéressé ab jullit dafa war a def ay waxtoom ci jaamu yàlla juróomeel atawa atata atahaawun fi taat xoolal dañuy sàggane jaamu yàlla vacances kenn doo gis jàkka yi du am nit dimanche sax da ngay gis ñoo damay garaas quoi damay garaas dimanche kenn du dem fajar jàkk bu fekkee du vacances di nga gis gaa yi julli ci danañ jaar jàkka ji fajar ndax dañuy jul dañuy liggéey yi danañ ñëw julli si waaye bu dee vacances doo gis kenn jàkka joo dem ñetti nit nga fay fekk ak imaam ak lu tuuti. mbokk yi ab jullit dafay topp yàlla yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun juróom benneel mooy al ukuuf ala baadil maasi da ngay gis koo xam ne dafa boof danaan bu ma kenn woo day fay téléphone am wax bu kenn wax fu ma nekk ndax lan ndax mooy yàlla bu muy def allahu akbar nga dégg ñu ne dafa lëlu wala dafa nangam te ci mooy yàlla la nekk mbokk yi yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi bi idnih wassirajan munira allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila bokk na ci mbonu vacance juróom-ñaareelu tomb mooy bayul malabisil muharrama mooy jaay yére yu araam allahu akbar xoolal fii nu toll tey soo duggee ci sunu marché yi soo xoolee sunu jigéen ñi yére yu araam rek rek rek rek la ñuy jaay yére yu araam rek la ñuy sol suñuy tailleur yére yu araam la ñuy ñaw jaaykat yi yére yu araam la ñuy jaay ñii jënd yére yu araam la ñuy jënd koo wax mu ne dafa tàng ñu rak ñu fàtte tàngaayu jahannama yàlla waxoon na qul naara jahannama asaddu harran law kaanu yaalamuun bu ngeen xamoon safara jahannama kon di ngeen xam ne tàngul tàngaay baa nga fële koo wax mu ne dafa tàng kenn du solére ñun ñëpp ñu bàyyi sunu njaboot ñii di jaay lu araam ñii di jënd lu araam ñii di sol lu araam tey xool leen dugg leen ci marché yi mbooleem lu ñuy jaay lu jëm ci yére lu araam la koo wax mu ne dafa tàng fan la ñu jëm bu nu tàng bu nu ragalee tàngaayu adduna te ragalu nu tàngaayu àllaaxira te kat tàngaayu àllaaxira ak jahannama aadama bi mu wàccee ci kaw suuf daa xool yàlla mu ne yàlla damaa bëgg nga may ma ci sa safara loo xam ne bu ma lakkee ci sama yàpp bi dana ñor yàlla mu ne ko aadama jahannama xejul ci kaw suuf aadama ne yàlla foog nga may ma ci suuf safara si tuuti pour lu ma lakkee pour lu ma toggee sama togg yàlla daa di dagg ci jahannama lu toll ne bekk sukkër sànni ko ci géej gi géej gi di vague di bob yàlla jël ko sànni ko ci montagne yi mu explosé am ñax bu tàkk tuuti yàlla mu ne aadama jëlal lee di tàkk ci ñax mi li ci des nga bàyyi ko moo ngi fii ak man ba ëllëg ba ngeen ñëw fekk ma fii fan la ñu jëm koo wax mu ne dafa tàng biir bàmmee la gën a tàng ndax foofu amul ventilateur amul climatiseur amul uppukaay bay u malabis muharrama jaay yëre yoo xam ne dafa araam mooy juróom-ñaareelu tomb ci mbonu vacance juróom-ñetteel mooy irsaalul awlaad ilal muxayyamaat as sayfiya yónni xale yi jël say doom yónni leen ci caravane vacance yi ci colonie de vacance sa doom dem yàqu jàng fa tux cigarette jàng fa naan sàngara jàng fa njaaloo bu dee jigéen ñu jàngal ko nu muy amee far nu muy defee lu bon muy biddanti du julli benn waxtu di tëgg di fecc ba vacance bi jeex mu daal di ñibbisi nga daal di koy fayal ay deux cent mille trois cent mille un million. ñaata ci ñun tey ñooy yónni seen doom ci caravane vacance yooyu am na ñoo xam ne tey ñoo ngi fi ñu jumaa ji toog seen doom yaa ngi ci colonie de vacance yooyu. ragal leen yàlla ci seen doom yi yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran wuquduha annaas walhijara alayha malaikatun gilaazun shidaad laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun yéen ñi gëm yàlla yàlla ay woote ñan lay woo ñi ko gëm mu ne moytu leen safara waaye musal seen njaboot musal leen seen bopp musal seen njaboot ki jël doomam yónni ko colonie de vacances kooku mus ragalul yàlla kooku musalul doomam safara te kat alquran waxoon na ne qul inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyama ñi perte dëgg mooy ñi perte seen njaboot perte seen bopp ëllëg yowma alqiyama ñu dugal leen yéen ñëpp safara juróom-ñeenteel mooy tanzim ad dawrat ar riyadiya kuratul qadam wal musaaraa juróom ñeenteel bi moo gën a dangereux ci ci ci li yàq vacances mooy organiser ay tournoi nawetaan football léegi mu commencé dëkk boo dem cinquantaine centaine de équipe bu nawetaan kenn dootul gor kenn dootul liggéey kenn dootul def dara xale yu góor ak xale yu jigéen sol lu bon solu ci stade yi guddeeg bëccëg ba stade yi ne pain fees bokk ci violence boo xam ne kenn xamul nu mu toll mbokk jullit yi nawetaan ban njëriñ la am ci àdduna ndax Amérique li ko avancé mooy nawetaan anglais yi ñoo indi football ci àdduna ndax football moo leen avancé xool leen pays yi gën a développé tey ci àdduna bi mooy Chine doo dégg mukk ñu ne Chine waaye jël nañ coupe du monde parce que ñoom taluñu football ñu ngi liggéey te ñoo fi raw tey dëkk yi raw ci àdduna bi Amérique xoolal ñoom taluñu ay coupe du monde ñoo ngay gëm di liggéey raw adduna bi waaye ñun ñun ñi nga xam ne ak football lañ tal ñun ñi nga xam ne làmb lañ tal ba tabax sax ab arène pour kaay leen ngeen bëre mas ngeen gis dëkk bu bëre ba avancé wax leen ma dëkk boobu nu mu tudd fu mu nekk dëkk boo xam ne bëre dañoo bëre bëre bëre ba dëkk ba yëpp baax dañoo football football ba dëkk bi baax mbokk yi am réew dañ koy tabax ci liggéey kenn di ko tabax ci po dañoo waroon tabax benn institut bu ñuy jàngale nit ñi technologie waaye tabax fu ñuy bëree laa ilaha illallah waaye nag wax leen ma yéenay ñan ma wax leen ñan ñoo leen di gouverner kayfa ma takunu yu walla aleykum yonent bi nee na nu ngeen di mel rek ñu njiit yu mel noonu ngeen di am nu ngeen mel rek njiit yu mel noonu la leen di yàlla di indil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax loolu te noonu la ñu mel foo lañ bëgg caaxaan lañ bëgg lu yomb lañ bëgg moo tax ñu tabaxal ñu ay arène ak ay arena fu ñuy footballé fu ñuy bëree fu ñuy basketé fu ñuy fowee rek waaye fu ñuy jàngee fu ñuy defee formation ana foofu li gën a yées ci feetu vacances mooy nawetaan nawetaan bokk na ci li yàq Sénégal te du jag mukk lu dul dindi wuñ fi nawetaan parce que amul njëriñ mbokk jullit yi fukkeel ci vacance bi mooy atabarruj wa sufuur mooy def yaramu neen di tambambalu def tam tabarruj def yaramu neen xoolal tey sunu géej diggante mois de juin fin juin ak juillet ak fii nu toll ñaata xale ñoo dee ci vacance bi ci géej gi ñaata xale ñoo dee Malibu ay quarantaine su fekkee boobu ba léegi arrêté wuñu mën nañ cinquante ci ay xale yoo xam ne dañuy dem ay soirée yoo xam ne dañ koy tëgg guddi ci wetu géej gi allahu akbar ñun bu ñu yemee ci bañ a taw nan sant yàlla Sénégal bu ñu yemee ci bañ a taw wallahi nanu sant yàlla ndax nii nu fetteerloo dëgër bopp ci diine yàlla ji xoolal tey bëccëgu tabaski nga gis ku naan du ma julli tey suba laay julli te tey bu ñu ne woon gàmm la ñëpp gàmm suñ ne woon leneen ñëpp def ko doo dégg mu ngi ñu wute ci gàmm wala ñu wute ci leneen wala ñu wute ci 31 décembre wala ñu wute ci 24 déedéet ci jaamu yàlla rek li yàlla moom rek la ñuy wuute li nga xam ne yonent bi moo ko moom séddoowu ko kenn rek fa ngay gis rek ay nit taxaw rek di indi wuute allahu akbar mbokk julit yi def yaramu neen dañ koo tere góor waxuma la ak jigéen olof yi nee nañ def yaramu neen di wër foo yegg si ñu ne dafa rafet fas la jig fas fas moo dul sol yére fu mu yegg si ana ñu ne ak rafet waaye nit nit tey xoolal sunu jigéen ñi amatul jigéen buy sol yére Sénégal yére bu baax ñii muuru sax la hawla wala quwwata illa billah muuraayu tey bi waxuma la ak nag ñi muuru wut du nu xoolaat sunu bopp du nu tuub du nu ragal yàlla du ñu am kersa ci jalla jalaaluhu wa azza kamaalu tey bu ñu ne woon benn xalifa général day ñëw ñi koy seeti ñëpp dañuy muuru wala waaw yàlla mi lay gis guddeeg bëccëg nag ki nga xam ne laa tax faa min xaafiya mbokk julit yi fukkeel ak benn mooy ixtilaatu rijal bin nisa mooy jaxasoo góor ak jigéen ñi tey foo dem foo dem ci Sénégal góor ñi ak jigéen ñi dañuy jaxasoo soo demee ci dëj nga fekk baasu góor ñi ak baasu jigéen ñi foo dem boo demee ci ngénte yi ngénte yi sax moo gën a garaaw ndax kii tudd imam bi mooy tudd kii indi doom bi ñu koy tudd jigéen la yenn saa yi sax mu teg poojam ci pooju imam
allahu billahi wallahi taala ci digg góor ñi la naan faax toog imam da koy jege ba day sëgg ci kawam loolu ban diine la fan ngeen gisee góor ñëpp lañ toog benn jigéen ne cundung ci digg bi boo waxee ñu ne bàjjanam la parce que ay bidaa lañ bëgg bëgguñu sunna Sénégal bidaa rek lañ bëgg dundal bidaa màggal bokkaale loolu dong moo tax ñu mel nii nu mel waaye bu nu dëpput wa ka ayin min qariya atad an amri rabbiha aaya bala ca tegu ñun ñëpp jàng nan ko mbokk yi fukkeel ak ñaar mooy musique ak la ca aju xoolal tey vacances su ñëwee bañ nañ ko ba dañu am ministère boo xamante ne dañuy jël benn enveloppe bu rëy ne ko vacance bi la ñu tuddee ko vacance lan citoyen ñuy tëgg di fecc di way ñaata yoon la ñu yàlla wax ne musique daa araam ba ñu yàlla waxee musique daa araam ci alquran ñaata la wa min annas man yastari lahwa alhadis li yudilla an sabilillah aaya boobu lan la boroom xam-xam yi wax loolu lay tekki du musique lan la yonent bi wax iyaakum wa istimaa'il maazif wal ghina fa innahuma yunbitaani nifaaq fi lqalb kama yunbitul ma albaqala mooy tu ni ku leen musique ak ay woy ndax day saxal naa féq ci xol comme ndox ni muy saxale ñax lan la yonent bi wax la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna alxira walxarir walqamr walmaazif dana am ñu nekk ci sama xeet la yakun nan na la yonent bi wax dana am ci sama xeet ay nit yoo xam ne danañ daganal suwa daganal njaalo daganal sàngara daganal musique tey musique dagana ci Sénégal fépp foo dem musique baa ngi fa kilifa diine yi sax am nañ ay waykatu musique da ngay dégg kinne maam Bamba jaal monsieur aas ndongo sëñ Fallou musicien yëpp dañoo am sëriñ ngeen defe ne loolu dagan na ngeen defe ne tey El Hadj Malick wala Cheikh Ahmad Bamba bu ñu dekk woon dañuy nangu am ay waykat yii démb dama nekk ci biir oto ma dekk waa ji di way ci oto bi di way ba caag mu ne ana taalibe sëñ Fallou yi na ñëkkati seen loxo ma ne ko est-ce que taalibe sëñ Fallou fii lañ ko war a gis ma laaj ko chauffeur bi mu ne ma wax nga dëgg de ma ne ko est-ce que taalibe Cheikh Ahmad Bamba ci soirée lañ ko war a fekk est-ce que taalibe El Hadj Malick foofu lañ ko war a fekk est-ce que jullit bu baax dalee la fekk ci soirée nga yëkkati sa loxo gàddu sa butéel sàngara naa ni est-ce que est-ce que loxo ci kaw bàkkaar ci suuf tee ñoo tuub tee ñoo dëpp tee tee ñoo delloo xel yi yàlla tee ñoo xam ne nun ay jullit lañu musique dafa araam imaamu malik nee na laa yasmauhu indana illa alfusaq ku koy déglu kàccoor nga imam malik daf ko wax xëm ñu yenoo ko ci kër gi ci jàkka ji yóbbu ko ca kër ga di ko sotti ndox ba mu ximmiliku mu naan hal yasmauhu muslim ndax ab jullit dana déglu musique abu hanifa bañ ko laajee dafa ne simaul agani fisq wa talazzuzu biha kufr déglu musique bandi moo koy def mu ne koo gis muy déglu musique bandi la ñu ne ko ku ciy kontaan nag mu ne kooku yéeféer la Allah
simaul agani fisq wa talazzuzu biha kufr abu hanifa moo wax loolu mbokk imam ahmad moo wax loolu nañ leen góorgóorlu delluwaat ci sunu borom subhanahu wa taala fukkeel ak ñett mooy an nawmu ala salaatil fajr allahu akbar bu vacance jotee kenn du yeewu fajar ñun ñu toog ci jàkka ji tey julli ji tabaski ñan ci ñun ñoo mun a seede seen bopp te ne dem nañ yeewu nañ fajar tey allahu akbar yeewu fajar yonent bi nee na ñaari julli naa fekk du ko julli julli fajar julli gee xoolal ñaari rakk fajar rakkatay fajar xayrun min addunya wa ma fiha ñaar rakk fajar moo gën àdduna ak lu nekk ci biir àdduna kon ku julli suba gi nag su fekkee ñaari rakk yi rek naka la jullit di yeewoo midi taraxlaayoo sarbetam gàddu borosam ci gémmiñam yor ab satala waaw yow yeneen ngay doog a yeewoo si dama doon garaas quoi dama doon garaas boo garaasee fii mbaa di nga doo garaas ëllëg àllaaxira ci biir jahannama tey su li heure julli heure liggéey jotee kenn ci ñun du tardé allahu akbar bu heure liggéey jotee da ngay gis ñëpp daw nga gis waa ji mu lala mu jaral ko mu luwe taxi pour lan pour bu ma tardé bu ma tardé dañ may dàq léegi nag ngay tardeel waxtu yàlla nga fàtte inna salata kaanat alal muminin kitaaban julli dañ ko utal heure kitaaban mawquut julli dafa am heure nekkul ne heure bu la neexee nga koy julli mbokk yi fukkeel ak ñeent mooy mushahadatul aflam wal masrahiyat bokk na ci vacances yi musiba bi ci nekk mooy seetaan film yi ak théâtre yi gis ngeen Sénégal tey niñ jëlee film ak théâtre rawatina théâtre nga xam ne lépp lu ñu nar a jàngal ci waa Sénégal ci lu bon ci théâtre yi lañ koy jàngalee tey gis ngeen xale jigéen yi ni ñuy solo mooy ñi nekk ci théâtre yi ni ñuy solo ni ñuy waxee ñooñu noonu la ñuy waxee ni ñuy lépp lu ñuy def tey ci théâtre kat yooyu nga xam ne ñooñu la hawla wala quwwata illa billah ñooñu jur leen sax gàcce la jur leen jur leen gàcce la waxuma la ak nag toog di leen seetaan waxuma la ak toog di leen déglu boo waxee ñu naan message la ñuy jàllale waaw message la ñuy jàllale c'est vrai mais ban message la ñuy jàllale ndax message bi jëriñ jullit la théâtre yi ji am ni lan ngeen ci jëriñu dara doom baay bu violé doom ne da koy takk loolu moo indi tey problème bi ci Sénégal baay bu violé doom doom bi ñëw ne day takk doom ba xale bu jigéen boobu ñi naan dagan na ñi naan araam na ñi ciy tontu sax dañoo amul personnalité ñi ciy tontu parce que loolu du problème ul islam dafa am lu ko gën a nekk problème loolu lañ war a wax waaye dafa am fu ñu bëgg a yóbbu waxoon naa leen ko fii ci tafsir dafa am fu ñu bëgg a yóbbu léegi ci yi lañ ñuy jaarale ñuy dem di dem ba yegg lii un la rek wala deux dafa am fu ñu jëm mbokk yi qadaa u saat at tiwaal fil maqaahi internet mooy dépasser temps bu yàgg ci internet ci vacances laa nekk nga kal ko ci sa whatsapp wala sa facebook wala wala wala ba benn jaamu yàlla doo ko def bu ñu tënkee mbir yii mu nekk fukki mbir ak juróom yu ñu tënk ci loo xam ne moom moo yàq vacance bi ci loo xam ne jullit yëpp tey ñoo ngi ci musiba boobu waaye lan mooy solution mooy yii ñu wax ni seen contraire nan delluwaat ci yàlla nanu tuub sunu waxtu nañ ko jox yàlla sunuy doom nañ leen yar nañu ngëpp sunu diine ak suñu dëgëj addu alayha bin nawajis matt leen seen diine ak seen dëgëj bu leen ko bàyyiloo kenn atiullah wa atiur rasul topp leen yàlla topp yonent loolu la yonent bi waxoon keroog ba muy aj ca ajjatul wida ca aj gu mel nii tey mu taxaw ca arafaat lan la dénkaane innahu man yais minkum yéen bu ngeen dundee sama ginnaaw di ngeen gis fa sa yara ixtilaafan kabir alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyin addu alayha bin nawajis topp leen yàlla su ngeen dundee sama ginnaaw di ngeen gis wuute ku nekk topp ku la neex su boobaa nu ñuy def mu ne topp leen yàlla topp yonent ngeen topp sunna ñi ma fi remplacé na ngeen ko màtt ak seen dëgëj bu leen ko bàyyi mbokk jullit yi tey mooy bisub tabaski nañu ñaan yàlla tabaraka wa taala nii ni ñu yàlla boolee ci jumaa ji yàlla nañu yàlla boolee noonu ci aljanna waaye bu ñu fàtte ñi ñu may occasion bi pour ñuy jullee fii muy ki tabax jàkk ji waaye duñu du ñu fàtte ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaye bu ñu fàtte am na mbokk yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo doon jullee ndóof tey ku gestu ndeyjoor doo leen gis ku gestu càmmoñ doo leen gis ku jóg taxaw génn jumaa ji ci kaw ak ci suuf doo leen gis mbokk yooyu ananu ñu ngi ci biir bàmmeel yi ñoom dem nañ ñun ñoo leen di topp waaye dem nañ bàyyee ñu liggéey ban liggéey lañ ñu bàyyee seen njaboot ndax ñun dañoo war a nekk tey di lekk di noos di solu seen njaboot di tumaranke kon war nañu lépp lu nu yor lu nu am te mun ko fee fàtte suñu paree ñu séddale ko mbokk yooyu yal na leen yàlla taxawu ci loolu allahumma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna ba'da almawt برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا مغير الاحوال غير حالنا الى احسن الحال اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين